asalaamaaleykum mbokk internet yi leen jaajëfal dem contentement ak mbégte jën ak yéen sax suba a fës si bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu ñu ma toogal rek daal di ñëw ak may nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu bu baax a baax suñu mbokku internet yépp ñuy topp ci Leewtoo TV di lay ñaanal jàmm ak salaam di nuyu waa Njaareem sama dëkk. Assane Waala nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom ci ci lënd bi. ci noonu nag UG mooy di may seen revue de l'arène chaque jour Mbaye waaw euh, comme ni ngeen ko xamee rek Iwil Jador moom la ñu àndal ci revue de l'arène bi ñu leen di amal fii ci Leewtoo TV bis bu yàlla sàkk di leen fàttali nag ne Iwil Jador mooy diwlin bi nga xamante ne bii moo gën ci diwlin yi te jigéen ñi nga xamante ne bii jàppante nañu ak moom kenn amul ci benn rëccu rëccu. ma ngi noonu lundi 15 mars 2021 journal suñu lamb xëy ci mu njëkk. Lac de Guiers 2 Eumeu Sène du avril la guerre mystique sa fait rage may combat boobu la war a am le 4 avril incha allah bu ci yàlla àndee te suñu papa Gaston Mbengue tëgg ko muy dox ci diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène mën na ne bataille mystique ba commencé na maanaam xeex ci wàllu xar fa xur fa ku ci nekk yaa ngay won sa morom ne ko affaire bi man la. dëgg la Mbaye Babacar Lac 2 Eumeu Sène di 4 avril la guerre mystique fait rage noonu la ko journal suñu mu waxee comme Babacar ni nga ko waxee noonu la euh, ñaari mbër yi ku nekk mi ngi xam mu ngi jëm ci mbokkam pour pare mystiquement le jour J euh, journal suñu làmb nee ne Eumeu Sène mi ngi blindé ci Badiana benn village bu tudd Badiana Bogal ak Gambe nee na ñetti village ñetti villes yi daal Euh, Eumeu Sène bàyyiwu ci benn te fu nekk dem na fa pour mën a rek le jour ji mu mën a jàpp Lac de ci wàllu mystique waaye Lac de Guiers également bàyyiwul boppam la suñu laamu nee ne mi ngi si suyoo ne Casamance Pakaaw ak Waalo nee na moom mbokkam yi la euh, siyoo ne di fa dem lépp pour moom it pour bañ Eumeu Sène jàpp ko mystiquement euh, suñ euh, làmb teg na ci également ne combat boobu Gaston tey la koy réguler foofu sa CNG. kon daal mën na noo jàpp na ñoom ñaar fu ci waay xam rek yaa nga fay dugg ngir pare ci wàllu mystique. làmb ak mystique ñoo ànd te ku nekk bu euh, làmb jotee say bokk ngay dem ñu defar la taxaw la ci côté mystique ba nga mën a taxaw la jour ji. te ku nekk fa nga yaakaar wàllu ngay jëmale sa gémmiñ. noonu la Mbaye Babacar. mu ngi promoteur bi di euh, euh, prince moom euh, jàpp na combat bi nga xamante ne bii moo war a dox ci diggante Thiat ak Modou Dia kañ la ko jàpp incha allah bu ci yàlla àndee Thiat mu ngi jàpp komba boobu incha allah bu ci yàlla àndee le 13 juin. incha allah mu nar a nekk combat bu neex ndax ndax Modou ja ku ne xam na ne champion la caat tamit ma macha allah. dëgg la Mbaye Babacar ñoom ñaar ñooñu ku nekk ci victoire nga jógee caat Modou ja prince retient la la date di 13 juin noonu la ko journal suñu la am waxee nee na prince la ci jokkoo prince prince na def adressé na benn lettre waa CNG pour ñu mën a koo jox. date boobu waaye nag euh, journal suñu lamb teg na ci nee na ngi États-Unis di rey boppam ci entraînement yi waaye mun Dia moom ci plage yoon bi di entraîné bu baax. mooy noonu la gala demi simple le 4 avril au terrain Gavi ki nga xam nii mooy góor production mise 3 millions. góor production ñu ràññee ko bu baax a baax ci wàllu bëre simple moom nag. ma ngay waajal ngir jëm fële ca terrain gaal gi incha allah bu ci yàlla àndee le 4 avril moom nag moom nag nee na dina tegal mbër yi ñetti millions asal dëgg la Mbaye Babacar góor production moom moo nar def loolu nee ne dina miser 3 euh, millions le 4 avril bii di ñëw ci terrain gaal gi terrain gaal gi nag mu ngi nekk Grand Yoff euh, euh, soriwul trop rond point Liberté 6 góor naal nee na pare na pour teg un million trois waaye avant góor Jax également dina teg le 21 mars deux euh, millions euh, deux deux million cinq cent de même que euh, le 21 mars Fall Ndiaye également dina ñëw ci terrain gi tëgg fa benn combat wala benn gala le 8 mars moom it deux million cinq cent lay lay lay lay misé waaye lu ki ñuul moom mooy le 4 avril bii nii Gaston daf jàpp benn date muy Eumeu seen Lac de léegi bu ci góor bëggee teg beneen gala lutte simple waaye nag ñu fàttali que ne public gu lutte simple ak public gu lutte euh, lutte avec être ñaar yëpp mën na feesandoo. Mhm. mu ngi noonu Pape Dieng sur l'ouverture de la saison mu ne c'est un grand ouf de soulagement. El Hadj Papa Dieng di euh, ka nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu làmb te ñu bëri di ko bàyyi xel tamit moom euh, journal bi dalal na ko waxtaan ak moom ne mais na li li nga xamante ne bii moom mooy saison bi ñu bi bi ñu ubbi. amateur yëpp yàkkamte woon nañu ko li ci des rek mooy ñu respecter mesures barrières yi bu baax. dëgg la Mbaye Babacar Papa di chroniqueur foofu ci rajo bu di Sud FM moom nag li mu wax nee ne ouverture saison bi euh, c'est un grand ouf de souvagement noonu la ko journal suñu làmb waxee waaye nag Papa Dieng mi ngi fay invité monde làmb nee na ñu respecter mesures barrières yi. ñu sol ay masque ñu def ay gel euh, antiseptique waaye également ñu respecter distanciation sociale yi mu ngi noonu nag formation en garde rapprochée dix lutteurs de Thiès diplômés Mbaye Babacar mu mel ni loolu nekk na initiative bu gën a gën bu ñu bëreewul rek daal di jàpp feneen mbay. mi ngi noonu mbër waroo yem ci bëre kese da war a am mbër da war a nekk mbër bu pare am sa métier bopp ba nga xam ne bu làmb ji xawee tagga témbe tuuti rek nga mën cee jàpp loolu nag association FILS moo ko taxawal gannaaw ba mu tàggatee fukki mbër foofu ci Thiès mu mel ni jébbal nañ leen seen ay lijaasa dëgg la Mbaye Babacar Bamba Mboup moom mooy président affice AFIS moom mooy association pour la formation et l' insertion l' insertion des lutteurs du Sénégal Bamba Mboup mi nag moo ko initié di forme nit ñi wala mbër yi ci wàllum garde rapprochée euh, di semaine du premier au 13 mars euh, formé na ci fukki mbër te fukki mbër yooyu ci semaine bii la leen jox seen lijaasa ku nekk léegi mën nga nekk garde rapprochée euh, à part ne nga nekk lutteur am nga beneen métier boo xam ne nii mën nga ci gagné sa gannaaw ba nu formé mbër yi nekk na Dakar formé nañu Diourbel formé nañu fële di euh, Foundiougne wante tamit euh, ñu wàcc Thiès kaay barki démb muy lu am solo la nga xam ne ñu ngi ciy remercier ab Bamba Mbuub bu baax a baax. dëgg la Mbaye Babacar mu fàttali que ne mbër yi ñu formé foofu euh, Tivaouane la jóge Pout ak Thiès ñetti zones yi ñoon daje. jël fa ay mbër formé leen ci garde rapproché lii daal benn initiative bu baax la boo xam ne na permettre boo amul combat nga mën a gagné beneen sa ci beneen anam. macha allah. mu nekk lu rafet ñu koy saluer bu baax a baax 15 mars 1998 15 mars 2021 Eumeu Sène fête ses 23 ans dans ren mu ngi noonu Eumeu Sène mu mel ni def na ñaar fukki at ak ñett ci làmb ji Assane le 15 mars 2090 ba léegi moom mi ngi ci làmb ji def ci làmb ji lu tollook ñaar fukki at ak ñett journal bi nag ñëw tey. def ci moom gëstu bu yaatoo yaatu. dëgg la Mbaye Babacar euh, Eumeu moo fi fêté anniversaire am ci biir làmb ji comme ni nga ko waxee mi ngi dooroon carrière am le 15 mars 98 tey di 15 mars 2021 donc mu am 23 ans ci làmb loolu nag du lu ndaw. jot na cee nekk nag roi des arènes ginnaaw bi mu daanee Bombardier le 28 juillet 2019 wala 2018 mu waaye mu mu pertaat couronne boobu un Euh, ginnaaw bi ko Modou Lo daanee le 28 juillet 2019 ñu fàttali que ne euh, Eumeu Sène jot na bëre 20 combats am na 10 victoires 8 défaites ak 200 verdicts mu mel ne ci ñaar fukki at ak ñett yi am na ci ay euh, tàkkusaanu bànneex waaye am na ci ay tàkkusaan yi nga xamante ne bii lu xawoon a métti waaw waaw am na ci mbetteel waaye am na ci ay bànneex également ñu fàttali que ne daane na Balla Gaye deux fois. loolu xam naa ci histoire mais également Modou Lo daane na ko deux fois. loolu mooy làmb. mu ngi noonu lu ma la la ne mooy Eumeu Sène di ko leen defal bu baax. bureau. toujours pas opérationnel. mu ne CRG bu Kaolack taxawal nañ ko ba ba léegi euh, bureau bi taxaw na wante ba ba léegi bureau bi daal amul benn liggéey ba nga xamante ne bii dafa gum la dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi nu falee Maam Koor Faye ci boppu CRG bu Kaolack boobu suñu laa mu nee ne ba léegi daal moom bureau moom ak bureau bi euh, opération neegulagul ndax ba léegi jëlagul fonction lu ko tax mu yéex nag nee nañ ba léegi passation service bi waroon a am. ci digganteeg euh, digganteeg moom ak euh, Bira ba léegi amul suñu laamu daal nee na lii bokk na ci li yëf yi. mu ngi noonu nag réouverture des arènes par l'État c'est la guerre des dates à Kaolack entre les promoteurs. bu léegi euh, Ndeye mbaake dañuy des foofu la ca Kaolack ndàngaan gannaaw ba ministre bi waxee. ne léegi mën nañu ubbi stade yi ay ay ay ay plus de huit wala lu tolloog huit personnes huit mille personnes di dugg ci stade yi mel ni promoteurs yi fi mu toll nii yàkkamti woon nan ministre bi wax loolu fële ca Kaolack ndàngaan moom promoteur ña ngay xëccoo daj yu baax yaa sax dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee loolu la waa làmb ñoo xiifoon làmb moo tax ba ministre bi defee benn déclaration ne léegi public bi mën nañu retourner ci stade yi Kaolack suñu làmb lu mu fa nemmeeku mooy que ne guerre des dates dafa am nee na promoteurs yi ñu ngi xëccoo dates yi ku nekk bëgg a njëkk tëgg nee na ay combat yu bëri également taxaw na fa bu mel ni euh, Sanjaafu bu Ninki Nanka war na fa dajeek ak Sa Thiès bu waaye usine doole war na fa laale également ak Boy Saloum nee na dates yi à part dates yi waa lutte simple également prévoir nañ ay dat wala prévoir nañ ay gala waaye ñoom ñoom daal am date bu baax moo leen téye sant yi. ma nga noonu la day jëm ci li nga xam ne mooy journal record MMA contre le polonais Pudzianowski bombardier à Pologne depuis hier di waajal li nga xam ne mooy combat fii ak ay fan yu néew. le bin 52 de Mbour Géej mu mel ni ma ngay waajal kombaam bi nga xamante ne bii mooy dox ci digganteem ak Pologne boobu mën nañ wax ne jël na fafal naaw jëm fële ca Pologne mën nañ wax ne jamono yi ma nga ca Pologne. dëgg la may Babacar ginnaaw bi mu jógee Sénégal dem France def fa quelques jours journal suñu la euh, journal Record nee ne Bombardier jógee na France maintenant mi ngi Pologne depuis hier wa maanaam démb moom nag li mu fay defi moom mooy eh, dafa am combat ak benn polone bu tudd Pudzianowski ñoom ñooy dajee combat bi la 20 mars bii di ñëw lay am eh, ñu fàttali que ne Bombardier combat boobu moom mooy ñetteelu combat am ci MMA jot na daane Rocky Balboa waaye jot na daane également Daniel Potmore. kon contre euh, Pidzia Norsk bi moom mooy nekk troisième combat ñu ñu ko ñu ko ci ñaanal mu am ci ndam comme ni ko rëg-rëg defee la dernière fois. allahumma amin. amin ouverture de la saison le 21 mars 2021 Jax pour ses conditions. Jax production moom mi nga xamante ne bi moom tamit day tëgg ay ay ay gala de lutte yi nga xam ne gala simple la ma ngay teg ay conditions yi nga xam ne ci la bëgg a tëgg incha allah mu mel ni dimanche bi di ñëw bëgg na amal làmb. dëgg la Mbaye Babacar ni nga waxee loolu la Jackson ñëpp xam ko ci wàllum lutte simple moom nag le 21 mars bi di ñëw day tëgg euh, benn gala euh, foofa ci terrain gaal gi mise bi 2 millions 500 waaye euh, pour mu tëgg loolu dafa teg ay conditions conditions yi mooy la nee dafa bëgg waa CNG ñu permettre lutte yi lutteurs yi. ñu bëree wala ñu combattre ak seen licence yi amoon daaw lu tax mu wax loolu bu dee ko licence yi ren yi lañ leen wax euh, mbër yu mag yi duñ am licence duñ mën a ñëw donc ci galaa bi te loolu manque à gagner la euh, amateur yi bu ñu xamee ne mbër yu mag yi duñ ñëw duñ ñëw ci galaat bi léegi nag nee na mi ngi ñaan waa CNG ñu permettre lutteurs yu mag yi que ñuy ñuy combattre ak seen licence daaw comme ça ñëpp mën a teewe euh, gala boobu mu ngi noonu di la jaajëfal jaajëfal bu baax Assane War loolu moo nekkoon li gën a fas ci bopp xibaar yi mbay lay tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp rek ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm Assane Waalo Ndeye Mbacke comme d'habitude di remercier waa Linguère di remercier équipe Leewtoo yëpp di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah mu ngi noonu di leen jaajëfal bu baax di am contentement ak mbégte jano ak yéen chaque jour topp bi nga ñu toog fii ci Leewtoo TV ci noonu nag naqar tiis dafa daanu suñu kaw démb Papa Thione génn àdduna ñu koy jaalee Sénégalais yëpp du ma ne sax Wally Seck mais Sénégalais yëpp laa koy jaalee da ko bu génnee àdduna rek ñun ñëpp ñoo ñàkk di profité waat ci occasion bi souhaité un happy birthday à Tafa Diop borom Diourbel sama xarit bu baax boobu di ko ñaanal gudd fan ak wér sutura àdduna ak alaaxira jaajëf la Ndeye Mbacke Ndeye Mbacke mënu Ndeye bala ngaa dem Tafa Diop moomu sama rakk la sama xarit la moom man tamit maa ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire longue vie santé naan ko rak dundal ba say may di baawa ndax loo dund doyul xele bu baax nga yaru ba pare respecté ñépp jóoba jubba mu ngi noonu jóoba jubba sama doom baay boobu maa ko tippoo nii di la ñaanal jàmm ju bare bare jaajëf ba ëllëg incha allah ci Leewtoo TV